mbokk yi ñi seetaan ci Senweb TV ak senweb point com ñu ngi leen di nuyu am mbégte bu baax di jàkkaarloo waat ak ci dernier numéro de la semaine ñi continuer nag di honorer ak suñuy jigéen parce que mois de mars lañ nekk franchement parler <laughs> ñun ñoo waroon moom weer bi yëpp ba mu jeex <laughs> donc aujourd'hui nag nous avons l'immense plaisir ñuy dalal Ndeye Arame Touré nekk journaliste boo xamante ni ràññeeku na ci euh, milieu médiatique bi donc tey ñu war waxtaanee divers jigéen euh, laataa ñuy dugg un peu ci li nga xam te ni moom moo di actualité bu réew mi Ndeye Arame Touré euh, ñu ngi lay nuyu di la dal <laughs> maa ngi lay fay maa ngi lay fay Aïda Mbène Niass mm-hmm. kontaan euh, si teew fii si plateau bi di nuyu également ñi nga xam ni yëpp ñooy safoo mm-hmm. Seneweb TV jërëjëf Ndeye Arame Touré Ndeye Arame ñu xaw la gëjee gis un peu ci écran yi da nga daw làqatu wala quest qui se <laughs> waaw dama daw làqatu <laughs> à un moment ku ma laaj gisatuñ la ma ne la dama marqué pause mm-hmm. parce que day baax yenn saay booy def dara nga mën a taxaw seetlu mm-hmm. xool bu baax li ngay def ba pare waxtaan ak aussi say mbokk mm-hmm. euh, pour mën a xam fan ngay teg sa tànk am na solo qu'est-ce que ça saa te fait le fait nga def benn break bu ndaw parce que ku la ku la xam moom ci ci ci Ndeye Arame Touré ci écran bi lañ ko def am na lu la manqué comme Pape Cheikh Diallo à un moment ñu ko doon mu ne ñun nous sommes les enfants de la télé. Mm-hmm. donc man bu may commencé def télé je crois que j'avais vingt deux ans. donc euh, quelque part. Mm -hmm. euh, télé moom moom moo ma yar. Mm-hmm. Euh, médium boobu laa gën a xam. Mm-hmm. donc euh, c'est vrai que à un moment damay toog Euh, yenn yi dina la manqué parce que mhm. am na ay effort yoo xamante ne jot naa ko def moo xam ay plateau la ak aussi des gens avec qui j'ai eu à travailler mhm. soo toogee yenn saa di fàttalikuwaat yenn passage yi et mhm. comment il y avait cette connexion là entre les gens bu ñuy liggéey loolu day def may manqué alors euh, cursus euh, Ndeye Arame Touré d'où elle a fait ses études dakaar waa nga war a parce que Touré moom ñu ngi naan kii Mandeng la wala boo kii moom malien la bu ñëw si dëkk bi ni muy kubee bopp bi plaqué ko am beneen style boppam <laughs> ndey aram non est-ce que lu tàmmul war rek xam nga <laughs> dama tese ku mel ni Ndeye Fatim Lo mhm. aram da nga daggati sa bopp bi may réyee ma ni eh, ko euh, booy def tele cest à yow xam nga li si nekk mhm. boo bëggee nekk tout le temps euh, defar sa karaw lii ak loolu laa ci doon tayal mhm. donc man su ma naree toog di brushing di lii je me dis je fais plus simple. Mhm. naa ko dagg mu gën a gàtt. Mhm. comme ça man su may dem tele ma mhm. def sama coiffure. ce qui fait que il est arrivé. si yenn plateau yu ma doon def nga xam ne ma ko doon def français ba jour yi ñu may dégg wolof les gens se <laughs> ndax man sénégalaise la. sénégalaise la donc loolu daf ma doon reetaan la ko wax man la sénégalaise la. Euh, du ma nag euh, mandeng. Ah. waaw alpulaar la. Ah euh, samay maam nekk Aéré Lao Fouta donc c' xëy na. jaar-jaar bi la média bi mooy dem ba benn moment nit ñi yaakaare la fenn mais aram aram doomu Sénégal la. Mm-hmm. doomu fii la. Mm-hmm. dégg naa wolof bu baax. <laughs> Euh, foo mm-hmm. euh, donc c'est quelque chose boo xamante ne lii na mais samay jàng fii la. Euh, ba bi may am bac donc nekkoon déjà jardin Alfala jóge fa. dem Parcelles Assainies. jàngi école bi ñu wax Nelson Mandela. fa mhm. laa nekk ba am sama BFM. Mhm. après ma dem euh, Kennedy. ah jaar na Kennedy waaw jaar naa Kennedy. <laughs> jël sama blouse aussi dem Carlo di defal ma si dédicace ma dugg si proviseur bi ne blouse bi euh, yow joxuñu la blouse pour nga ñëw signature ci ma ne ko waa d'accord moom elle a exigé que ma am blouse au même titre que les autres ma utaat beneen. ma dee ma dem raccourcir ko rien que parce que bugguma koon dagg mais dama mm. omb affaire yi si biir pour bañ mu. mu bàyyi ci xel ah ci booy kenn jën ñooy nga bokkoon di di di di jaay. non non am euh, punch yi <laughs> yooyu moom da nga naan sol sa tenue si biir. Mm. teg ko rek ci kaw rose bi noonu. Mm. mais xam nga suñ ni amee benn taille standard nga ñëwaat raccourcir ko. waaw boo ko rombee dina xam ni kii dafa dëgër bopp. am na lu xew donc euh, après à un moment donné dama obligé jëndaat beneen blouse. Mm-hmm. te xam nga doo mën a nëbb loolu ba sa papa du ko yëgaat ndax bu ma soxlaa damay dem na ko paa mm-hmm. jàpp si blouse bi. Mm-hmm. mu wax ma wax leneen ndax sañu ma koon wax ne ko dañ ma ci defal autographe. donc euh, loolu yëfi xale la rek. ma doon def série donc ku ma gis après xëy na si euh, euh, journalisme da danga naan lu tax ma ne non amul benn série bu ñu war a nekk dédié à telle chose. Mhm. Euh, dam ko bëggoon ma def ko et puis c'est tout. quand j'ai eu littéraire yi la ñuy faral di wax que ñoom ñooy am amul lecture amul bind amul wax tele xam nga narcissique d'habitude <laughs> loolu lañ leen di waxee <laughs> xëy na xëy na niñ ma tàggatee la quand mhm. tu vois euh, parent parents mhm. ñuy ñuy ñuy lire et surtout son papa dafa ma doon wax ni le meilleur moyen de voyager c'est de le fair à travers un ouvrage mm-hmm. donc su ma ko gisaanoon mu teg livre ba ci livre finance am damay ubbi di jéem xool su ma gisee ni lii daal ça mm-hmm. paraît être du chinois pour moi ma bàyyi ko sopp la loolu waaw sopp la <laughs> et moom it euh, mu nekk koo xamante ne su ma demaanoon école gis sama benn waa classe yor benn livre ma ñëw ne ko livre tell dama ko mm-hmm. bëgg commencé woon naa ko lii xam nga fii laa ci yam intrigue bi et tout il me soo amee telle note wala soo jëlee temps donc euh, soo ñëwee sa cadeau loolu lay doon. Mhm. Et, et, et quelque part su fekkee da nga demoon ci livre bi à fond di nga ko bëgg a àggale. et dama doon def loolu pour que ensuite mu mën ma yóbbu. Euh, si bibliothèque ma bañ a tudd tur mhm. euh, pour ma mën a jënd livre bi su ma ñëwee yeggali ko mhm. xam nga mhm. muy dem tamit bu liiree livre moo xam euh, fiction la wala yenn affaire roman policier yi mu jox ma man tamit ma liir après qu'est-ce que t'as compris ñu toog di ci waxtaan xam nga donc nekk na loo xamante ne xëy na moom ma poussé à que ma ma bëgg lecture waaw loolu lekk la donc pare naa bac dem extérieur pour jàngi euh, université pole César bu Aix-en-Provence mais gestion la bëggoon ma def euh, man nangul ko ko nag ndax xëy na mhm. bëgguma woon loolu mais moom loolu la bëggoon nga suñu parents yàlla def na dañuy am ambition par procuration mhm, mhm. dañu naan nit ki euh, sama doom nekk naa li xëy na sama doom bëgg naa mu jaaraat ci waaw léegi nag loolu moo tax ma demoon mais à un moment dama ne ko pas yaa ngi yàq sa xaalis ma ne ma lu tax ma ne ko waxoon naa la bu yàgg ne la communication laa bëgg a def. donc man euh, éco-gestion bi du pour man. mu ne ma non non essayel nga continuer nga xool peut-être ça va donner quelque chose et mhm. tout. Mhm. def na def ba sonn jéem na mais mais c'était pas pour moi j'ai dit le financier dans la maison ça mhm. doit être quelqu'un d'autre mais du man. <laughs> finalement noonu la finalement dafa xëy rek Sénégal gis ma ma taxaw à samay bagages. nga ñibbi si sans autant que mu. y avait que ma mère. qui était au courant et mais sama papa euh, bañoon euh, mu mu mu dissuader ma parce que yàgg na ma dissuader. Mhm. dama toog di dajale di dajale ba am de quoi me payer en billet et revenir ma def ko ñibbisi. nga dajale naka nga dajale parce que tamit nekk waaw am nga soo nekkee étudiant dem mhm. si si si dëkku jàmbur. Mhm. di nga def ay yeneen liggéey. parce que munoo toog rek di xaar lu ñu lay yónnee rek fin du mois peut-être soo amee chance am lool walla nga am bourse j'avais pas de bourse. sa papa moo ma doon fayal. Mhm. donc à un moment donné je me disais man dama bëgg euh, def li nga xamante ne ci laa yëg sama bopp. Mhm. Euh, loolu moo tax bi ma ñëwee neexu ko woon. et ça a été vraiment un moment très difficile. lan nga liggéey am na ñoo xamante ni moom bu ñuy rakkoon dañ naa raxas naa bool. dem naa jaay naa lii def naa lii lan nga def comment tu as fait quand même loolu moom il faut nga wax ñu ko. <laughs> waaw la euh, la la chose la plus xëy na simple boo xam ne peut-être man ci laa tombé mm-hmm. Mm-hmm. serveur la. xam nga parce que bon de petit resto soo ko defee vite fait ñu fay la nga am xaalis boo xam ne dinaa ci mën añ mm-hmm. euh, dinaa si mën a def sama yenn affaire ndax fu ma doon dëkk et tout j'étais bien logé et daf mën a jox sama xaalis dëgg la yàlla bëgg xëy na dalay jox xaalis bi nga gaawantu lekk ko et puis tu t'attends à ce que balaa la fin du mois xëy na boo ko woowee yërëmtalu tuuti mu jox la leneen mais il il m'a appris à euh, comprendre une chose maanaam lu luñ lay jox il faut une responsabilité mm-hmm. jox naa la ko ne veut pas di ko dem la yombal lépp parce que dans cette vie là buñ la yombalee lépp soo ma gisatul tu seras vraiment très fatigué mm-hmm. te da war a jéem amal sa bopp mm-hmm. donc après may jéem a korkoral nag mais quand je me suis rendu compte que dans ces dépenses là man mënuma yem rek si li nga xamante ne nii moom la may jox mhm. je me suis dit ok man li ma bëgg il faut ma boole ci dara mhm. te pour ma boole ci dara il faut ma ma ma liggéey à côté et euh, loolu moo ma indiwaat Sénégal ma ñëw mu mere ma pendant une certaine période sama papa sama xarit la woon. Mm-hmm, euh, bu ma demee ba mu mere ma affaire bi def na ma dara et mm, avec l'aide de la famille les gens on tout fait pour def médiation sama yaay jàpp si les tantes. Mm-hmm. sama cousin euh, pour que ñu daal di ne ah jàppale ko parce que comme ñëw na ba fii te sa doom la. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa ni war na nekk loo xamante ne nii boo ko jàppalee ëllëg si bii doo ko wócc. et la condition que je lui avais c'est que dinaa defe ji journalisme. ak communication bi ma la wax mais benn <laughs> benn lenn rek laa la bëgg a wax mooy ne mhm. tu seras fier en fait tu vas pas regretter lan moo tax nga dugal ma si mhm. Mhm. man noonu laay doxee c'est pas que bugguma lii man toog naa cours sociologie de médias ñu jox ma sama note fekk may doog a jóge Europe ma ñëw profit delloo ma am 6 les autres étaient en train de déconner di waxtaan et tout man ma tokki saal bi di jooy te fekk fekk lancé nga defi sa pap voilà professeur bi ñëw ba si man mu ne ma diw lu xew mm-hmm. ma ne ko siis bi laa comprendre pour la la mu ne ma mais yow lii ak lii jàngoo ko man li ma posé daf demande pas de restituer c'était pour une réflexion wax wax wax mm-hmm. ma ne ko d'accord mais lii mënu ma ko yóbbu sama kër mm-hmm. après à dafa marqué une mu ne mais man li ma jaaxal mooy dans am na ñu am note mais personne n'a semblé être euh, euh, par loolu mais moom mi ngi toog di jooy et je vous donne une semaine ngeen dem xoolaat encore cours yi. pour yéen ñëpp. pour yéen ñëpp et on refait l'examen. Okay. donc mu nekk loo xamante ne ba ma ko defaatee am naa si note bu baax. Mhm. et et laa doon doxalee noonu laa doon doxalee parce que dama bëggoon mu toog ba benn moment mu daan ne d'accord ñëw na. Mhm. Euh, dëgër na bopp ba ñëwaat mais mu ngi def tout pour ma bañ na ko àccam. challenge la woon am ko si yow. waaw euh, challenge la euh, bon man moom moom moo nekk sama sama référence. ah lu tax pourquoi sa papa. waaw euh, xam nga dama ko gis si nu mu doxalee euh, pendant des des années. Mm. Euh, gis ko comment il est avec la famille. comment il est avec euh, ses employés mu nekk euh, directeur général d'une institution financière pendant vingt ans. Mm-hmm. ñenn ñi. il fal fallu que sama papa décédé. bu ñu mm. dugg ci kër gi pour daal di ne ah tiens kon kii xaalis bu ñu doon wax daf ko lekk kon lekk ko. parce que dafa amoon parce am na lu ñu ko doon yaakaaree ne euh, moom la moom la moom la def euh, teg ko ci ndoddam et tout ce qui m'a fait mal c'est qu'on attend ba mu décédé pour ñu ne li ñu doon wax amul c'était c'était une cabale je pense que bëggoon naa moom mu fekkee ko. Mm-hmm. pour moom mu comprendre que ni ñun on a cru toujours en lui ndax da doon wax. Euh, samay doom ngeen mais samay naw la ngeen dama mm-hmm. bëgg leen waatal mm-hmm. ngeen xam ne li ñuy wax defuma ko jëluma xaalisu kenn et et mais papa jarul nga ñu koy wax ñun gëm mm-hmm. nañ la ñun xam nañ la say doom lañ xam nga donc jarul nga ñuy wax loolu ñun ñun gëm nañ la mais euh, xam nga góor góor la am na yoo xamante ne boo ko defee nii rek danga koy sonal quelque part sa accéléré sa sa maladie te bëggoon naa bu bu ñuy bu ñu naan setal nañu deram mu fekk ko fi. donc sa papa. <coughs> bi ni wane nga jege bi ngeen jege yoo li la gën a marqué ci dundam bokk na ci la ñu ko tuumaal te deful. waaw loolu loolu xam nga peut-être benn benn bu ndaw la. loolu mm. peut-être extérieur bi laa ci lay xalaat mais ñun ñi ko jege ñun njabootam ñi ko jege woon xam nañu ban genre nit la. mon père il a refusé benn euh, loolu bokk na si li ma gën a marqué. Mhm. une nomination bu ko président waa Wade defaloon pour mu nekk ministre des finances. Ah mu ñëw kër ga wax ñu ko ñu commencé di tëb tekki nañu xam na la tu connais comment on réfléchit mhm. en Afrique. Mhm. wala Sénégal sax laay wax. bi mu ñu ko waxee mu ne j'ai refusé ñun ñëpp ñu toog mais pas xañ nga ñu suñ teraanga xam nga ne affaire et il a mais non man suñ ma dénkee post ministère des finances. mën naa xëy xëy na ñu defloo ma wala ñu sant ma loo xamante ne bokkul ak man ne may gisee ma def ko ëllëg si biir man neew ma fi ngeen romb ñu ne seen papa moo defoon li loolu laa siy daw. sa papa un homme d'honneur kuy xalaat. waaw xam nga danoon xalaat doomam xalaat suba. Mhm. loolu man man man daf ma marqué dafa dafa dafa mënoon am lu ne. amoon possibilité mun a def yenn yi mais il a jamais accepté de nous donner cette facilité en nous hmm. dama bëgg ngeen ngeen jàng àdduna dama bëgg mu metti pour ngeen comprendre bés bu ngeen ko téewee hmm. ngeen xam njëriñ li lan la mais aussi bu ngeen amee partager avec les autres parce que loolu mooy tax mu am barke loolu mooy tax aussi ñeneen mun leen ñaanal pour mu pour mu jëriñ leen hmm. donc peut-être cette philosophie là moom lay jéem a lii man dama nekk genre boo xamante ne sama waa itam noonu la Mm-hmm. ku ciy def dara dañuy gëstu waxtaan mais après on se nañu fexe ba bu ñuy def bu ñu paree papa fu mu tëdd wala yaay fu mu tëdd bu ñu ne cam parce que am na loo xamante ne daf ma ko daan wax mu ne mm-hmm. sooy def dara ma nekk fi nga ne papa mu ngi fi du ko def mm-hmm. su ma wanee ginnaaw nga def ko sa ça veut kon yow bés boo mu gisulee di nga ko def nga def waaw donc dis que nit suy bañ dara ne lii du ma ko def da nga koy jomb mhm. te jomb nag transcender na nga ngay xaar ma nekk fi wala sama jëmm ji mhm. boo ma gisul sax sa conscience sa diggante ak sa borom mhm. dina la yedd pour que nga ne man lii waruma ko def ndax fi ma bokk man moom lay bañ a rusloo et je me dis je suis encore très loin très loin de ce qu'il et beaucoup de choses euh, je l'ai découvert bu mu demee si ay nit ñi ñëw di wax si ay affaire ak yeneen yeneen ak yeneen donc pour man kooku rek doy na ma euh, référence doy na ma leader Euh, doy na ma euh, jàngat ci lu bëri ndax am na yu bëri yoo xam ne gis naa ko xañ na boppam pour njabootam. fekkee na lu bëri tam ci sa carrière say début c'était comment ci journalisme. Euh, xam naa ne peut-être benn bi par exemple fu ma njëkkee école bu ma njëkk xàmmee ci télé. Mhm. d'accord 2STV laa laa njëkk a dugg. comme télé ah donc ñu bëri 2STV lañu yaakaaroon. non non 2S laa laa njëkk a commencé. Mhm. je suis entrée en 2009 novembre 2009. su ma nee sama waa kër su may c'est-à-dire document bi El Hadj Ndiaye approuvé je l'ai encore sama kër. xam nga donc euh, nekk na école pour man. Mhm. ma nekk fa ñu may tàggat di ma génn di defal lii du nii defaatal nii génn école rek doyu mhm. après dafay laaj aussi ngay ciy boole yeneen te boo demaatee ba di doxal benn moment da ngay laaj aussi ngay renforcer wu. parce que mm-hmm. on ne peut pas tout avoir il faut progressivement nga koy jéem di ko def ba ba mm-hmm. am li nga li nga li nga bëgg wala boog nga matee li nga xamante ne moom nga soxla donc moom daf ma doon gindi. Mm-hmm. Euh, xëy na tey di nga am possibilité nga taxaw si télé et tout mm-hmm. mais je pense que ku ko commencé rek xam nga ni c'est difficile c'est pas évident de parler devant les médias nga xalaat ne y tant de personnes qui regardent y a tel et tel tàmmal na ma lenn maanaam sooy sooy dem télé te loolu jàng moo ko euh, en tout cas pas spécifiquement comme ça mm-hmm. tu entres chez les gens sans être Mm-hmm. parce que nit ki dafa taal terrain rek mbëkkante nag yow xëy na li ngay wax intéressé ko mu seetaan la. Mm-hmm. li ngay intéressé ko aussi mu mu mu mu romb. Mm-hmm. mu ne xale mu ngi si. mag mu ngi si sëriñ mu ngi si ainsi de suite. donc ñooñu am na loo xamante ne moo la warlook ñoom soo seetloo yow bokkoon nañ di liggéey. donc tàmm naa reetaan si plateau. ma koy def benn jour ma ñëw mu ne ma diw mu ne ma kaay ma ñëw toog. là où les gens te disent c'était bien ton émission et tout nga ñëw mu ne lii baaxul lii bu ko defet lii bu ko defet mm-hmm. et donc damay dama doon de chaque fois su ma paree émission mm-hmm. comment il allait percevoir la chose mm-hmm. et dem na ba feebar loolu la doon continuer waat su ma naan reetaan yenn invité wax dara mënuma téye sama ma ree ba lii su ma ñëwee mu ne ma aram mu ne ma kilifa du toog si plateau bàyyi ay yitteem nga invité ko mu lay wax dara soit à travers ton comportement wala sa reetaan wala ni ngay defee mhm. mu yaakaar ni da nga ko fullaalul wala da nga ko ñàkkal fay c'est vrai généralement ma nekk si plateau nit wax dara damay jël kayit bi tax sama gan parce que damay xalaat yaa ngi xalaat li mu la waxoon da ngay xalaat loolu euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii lii na mais bon je suis je que mhm. mu toog ba benn moment mu ne ma euh, d'accord naa si li nga mhm. si li nga waxoon j'ai vu que tu battante parce que il était fier waaw parce que bañoon nga lii bañoon nga lii man man dama ko ko wax benn jour ma ne ko pas yow chaque fois su nit indee not sax nga ne ko tu peux fair mm-hmm. man na xaw ma yow sa excellent kañ lay ñëw neexul satisfaire ba bi ma <laughs> amee bac nag am mention la may doog a je suis fière de toi ma ne ko mm-hmm. mon Dieu depuis tant d'années il a mm-hmm. tey lay doog a dégg nga wax sa moolaa mu génn sa gémmiñ mu ne ma ah bon mosuma ko def ma ne ko mosoo ko def que loo indi boo jëlee troisième mu ne la premier beeg deuxième bi lan mm-hmm. la ñu am. Mm-hmm. fekk amoo yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi tel kes ce qui t'a lu xew. parce que jox nañ la tout sa kii fallait. tout ce qu'il pour nga pour nga réussir. et il te rappelle même foofu fan la jaar di la wax bu muy jàng ci ay lampe tempête et tout. Mm-hmm. yow amoo loolu. su courant coupé sax am nga groupe buy taag. donc qu'est-ce qui t'empêche nga jàng. réussir. yooyu noonu tamit mais kon sacerdoce quand même. voilà da naan kii man man j'ai du la le damay naan damay def tout pour mu am li nga xamante ne ni moom lay séntu si man parce que aussi. Mhm. la a une marque de confiance boo xamante ne teg na ma ko. Mhm. waaw du ci du ci âge du ci lii mais je pense que xëy na loolu day am si diggante waajur ak ak ak ak doomam benn euh, nu mu koy waxee loo xamante ne kersa. Mhm. kersa sama yaay daan na ko wax yow da ngaa ragal sa doom yi mu ne déedéet. ay nawle lañ. dëgg la naan doom doom nawle la nawle la waaw <laughs> nu muy wax ak yow rek. Mhm, mhm. da xam ne si avec beaucoup de tact bokk de de diplomatie et et le fait que man maay kilifa kër gi. yi n'était pas là à le revendiquer. yaa euh, moom moom la fait que euh, maanaam dafa instaurer ci yéen le respect entre vous ak moom entre yéen ak moom. waaw Aida mën na nekk sama rakk ma ñëw ma mhm. jàppanteeg moom maa tooñ Aida. Mm. buñ toogee ma ne Aida du yoon kii sa mag la waroo def lii waroo def lii mais bu Aida génnee. Mhm. mu ne ma yaa tooñ de. yaa ko tooñ. dama ko mënul waxee nii rek sa kanam parce que yaay magam. bu mhm. xëy na moo ko defee dina am lu muy indi ëllëg. mais jàppal ne yaa ko tooñ bàyyi xel lii bàyyi xel lii bu ko defati. et je pense que loolu noonu aussi mhm. c'est c'est c'est vraiment une bonne chose et que buy jël décision lu mu mënta doon mhm. il nous appelait à la concertation mhm. su amul concertation moom may na la ci boppam loo gis mu koy def te comprendre oo am nga ci xalaat nga ñëw ne ko paadam la soxla nga toog a moom ngeen waxtaan mu jox la argument am nga wax ko li nga xalaat bu dee d'accord au moins le dernier mot lui revient mais on en discute d'abord avant de de de de prendre décision. mel ni joué na rôle bu important si sa si sa si sa cursus. sa sa na benn femme boo xam ni un peu comme góor lañ koy wax <laughs> ci biir. <laughs> mu mel ni tam yaay joué na ci benn rôle parce que moom complice la woon ba nga ñëw fii même su dee. si li bëggul mais euh, benn événement bu bu douloureux on peut ñëw na mu bouleverser un peu euh, li nga xamante ni moom moo di nekkinu aram. Euh, mu mel ni ci benn espace bu bu jege yoo sa papa dëddu également sa yaay noo ko dundee. dafa am euh, benn période boo xamante ne sama papa il il était dans ma xëy dem defi soir d'info mm-hmm. ma teg ci deux jours sama frère bi nekkoon extérieur ñëw pour mën a gisante ak moom. bi mu ñëwee dalal sama xel ah li ma ko fekkee tel tel on était content maa sama yaay ñu ne ah kon suba ñun suñu tuur la ñun ñooy dem seeti ko. Mm-hmm. fajar boobu bi ñu xëyee la la la dem. Bouboundou dafa toog mu ne ma Aram je me demande comment tu fais pour yow sa papa nekk ci condition yi parce que bu mu décédé la kay doog a yëg mu ne ma nga doon ñëw di liggéey ma ne ko sama yaay moo taxaw ne ma bu fi nekkoon du nangu nga bàyyi liggéey jàmbur. Mm-hmm. ñu la fay xaar nga ñëw ne da ngay toog ci loo xamante ne mënoo ci dara ci loxo yàlla la nekk mm-hmm. tout ce qui mooy ñaan ñaan leen rek ñaan ngeen mën mm-hmm. loolu noonu tamit nekk na loo xamante ne ni marqué na woon ndax euh, c'était vraiment difficile waaw ñu bëri dañu yaakaaroon ni man man sa baab su demee dama siy dof parce que mm-hmm. ni ma ko taxee woon torop waaw et que ñi ma xam yëpp xam nañ loolu Euh, ay ñoom Samba Ardo les gens qui avant et tout ba léegi bu ñu ma déggaan noonu la ñu ana parce que mm-hmm. xamoon nañu ni mu meloon si man mm-hmm. et il acceptait même que sama yeneen collègues yi di ñëw kër gi yendu di waxtaan ak moom ci àddina lu ñu bëgg rek mm-hmm. moo xam secteur bu mu nekkal moo xam suñu milieu la moo xam moo xam pour nangul ñu ko toog waxtaan ak ñoom wàcce boppam loolu noonu marqué na ma ñu teg si tuuti dafa dem mais maire tamit yàlla dafa def set situation moo moo njëkkoon feebar mais dafa gën a dégradé ci ci sa ci sa décès papa. waaw dañ ko doon tooñ sa nangoo yow da ngaa kii paa bi rek da ngaa paa bi rek. moo tax nga mhm. liwee nii c'était mhm. pour la booster. Mhm. pour que mu mu mu yëngu moom itam nga xamante ne nii mu bàyyi xel ne euh, njaboot gaa ngi fii am naa rakk te xam naa ni mi ngi mi ngi doon mi ngi doon. Euh, compter si gisaat ko ki parce que man bi may tollu âge boobu soxla woon naa ku ma ku ma accompagner te mhm. yàlla dimbali na ma mu accompagner ma mhm. peut-être aw ma yenn yi ba jot leen ko defal mais euh, sant yàlla puis le peu bi ma doon am euh, barkeelu naa ci ci jox leen ñu ñaanal ma loolu loolu noonu lay naan xëy na ñu xaw a kontaan tuuti xam ne li ñu doon def si man am na am na dara lu mu lu mu jëriñ mais yàlla moo fi nekk ndax samay mag yi pap la ñu ngi mm-hmm. fii ay ay rakam euh, du côté de mais mère idem ils étaient là mm-hmm. ñaan julli ñaanal ko euh, loo rek nga mën a def di jàng alxuraan di leen di leen di leen fàttaliku di leen fàttaliku mm-hmm. et et souvent ne pas attendre ba nekk ci difficulté te loolu noonu tamit euh, maa ngi leen koy sante ndax it def nañ ci ñun diine bu mateewu cent pour cent loolu ñun la ndax man xëy na sama papa am na loo xamante ne nii euh, musi ci ànd mooy ma dingi sama kol ce que je faisais avant ba bi ma demee extérieur di jàngi université ñu may naan benn professeur génnal salle bi nga dingi sa kol nga def sa cours ba pare nga lii ah, ba ma ko woowee waaw mm-hmm. waxo ko mu mm-hmm. ne ma amul problème léegi duggee ci salle bi nga def sa cour soo génnee nga jëlaat kol bi nga dem mm-hmm. à moment donné mu soof ma mhm. ma bi rek teg mhm. ma ne je vais lii yàlla xam na lan moo nekk ci sama dënn ci xol bi waaw samay sœur à part sama petite sœur dañuy muur mhm. je suis la seule buy buy def bopp neen buy dagg boppam karaw gi <laughs> <laughs> moo tax ma ne su amee lenn lu lu lu loo xamante ne rek mateewul ci li ñu may sant wala li ñuy xaar man ci wàllu diine loolu mën la mais ñoom li leen war def nañ ko il t'arrive nga bëgg confesser wu parce que du ñàkk doom nga te daan nga waxtaan ak ñoom malgré que ñu ñu feebar euh, nga leen doon toppatoo mais doon ngay waxtaan ak ñoom si dara di sottante actuellement ça t'arrive walla nga dund loo xam te ni doon nga doon nga bëgg ñu ñu ñu ñu nekk sa kanam nga wax leen ko. waaw am na yoo xamante ne ni euh, du kenn. Mm-hmm. ku ma siy wax parce que am na loo xamante ne moom moo daan xool ne ma lii nii du yoon lii lii tegaat ma si yoon dama dem ba benn moment si rendu compte que j'ai un fort loolu ku ma xam-xam na ko mm-hmm. mais euh, moom dafa amoon sañ-sañam mook mm-hmm. sama yaay maanaam danaa wax mm-hmm. surtout sama yaay doom du ma yilif la yaakaar ba duma la wax dëgg c'est-à-dire ma mère mun nga ko may lii xaalis mu kontaan lii nga def musiba mu wax la musiba et elle s'attend pas à ce que tu sois contente et daf lay wax après PNS donc libre à toi d'encaisser wala nga mer walla lii boo xëyoon sax ne da nga mer sa bopp du la sax faale parce que ñoom dañu doon liggéey mm-hmm. boo leen mayee day neex ci xol mm-hmm. mais ñoom ñaq nañu li ñu war a ñaq mm-hmm. foofu lay foofu laay waxee ne instant bii nii les seuls ñi nga xamante ne nii euh, mun naa ne jege nañ ma ba ba mu mën a confessé wu den wax yenn nii c'est ce sont mes sœurs ce sont mes sœurs ndax mhm. nekk nañ ñoo xamante ne ni euh, dañuy waxante su ma naree def dara sama naa lii laay defe ji mhm, mhm. su ma naree dem invitation la ma ne lii laay defe ji et ñoom tamit ñu wax ma leen liñ ci xalaat euh, donc am na si ci sama vie privée yeneen a yeneen noonu laa koy waxtaanee ñoom Euh, kenn koo xamante ne te yaakaar naa ni yow xamu nga ko muy Ajara Cissé Ajara ah, Bonardi waaw maak moom moom <laughs> ay jumelles sax lañ ñu doon wooye mhm, donc mhm. moom itam euh, ku ma jege la mhm. sama sama sama rakk la te am na yu bëri yoo xamante ne ni euh, xam na ko si man donc kooku mun naa taxaw ne am na xoo xamante ne jaanañ mais bu weesoo loolu Euh, gisuma gisuma keneen. waaw damay bëgg damay bañ nit ne souvent euh, moo wax lii walla moo def lii moo tax lu ci bëri ma ma ma ma téye sama tànk. Mm-hmm. may bañ di di di jaabante walla di dem fenn fii tout simplement parce que euh, du sax métier bi ah, mais mais noonu la ñu tàggatee. Mm-hmm. maanaam doo xëy rek dem taxaw kër Aïda toog fa. amee waxtaan wi ba yenn heure yi nga jóg dem mm-hmm, waaw mm-hmm. ku bëriwul génn noonu lañ ñu tàggatee te loolu la ñuy continuer ba tey et je me dis bon def nañ ko bi ñu fi nekkee ba ñu demit ça mm-hmm. nous a réussi pourquoi changer la donne alors euh, actuellement on peut dire que même gëj nañ la gis mais dans le passé bu ñu xoolee quand bu ñu visité ci yenn ci ay télévision <laughs> jaar nga fa marqué nga fa tamit sa say empreinte wax nga njëkk nga jaar 2S euh, jógee ah. fa dem qu'est-ce qui s'est passé nga delluwaat fa après. waaw comme ni ma wax 2S euh, sama kër la. 2S ma naan toog naan madame Ndiaye gënumaa bëgg 2S. mais su ma woowaa sax di ma wax liggéey bi lii ak lii du yoon. Mhm. fekk man maa tooñ damay taxaw ne ko li nga wax dëgg la mais kër gi gënuma kaa bëgg. Mhm. c' pour te dire que euh, une télé boo xamante ne man li mu def ci sama euh, jaar mhm. jaar ci sama couscous. mënuma ko teggi du ma ko du ma ko sànni. loolu deux s man dafa am nu may fonctionner. Mm. maanaam encore une fois dem naa ba benn moment ma wax sama papa dama bëgg a changer dama bëgg dem dama lii parce que xam lan laa bëgg routine. même chose toujours damay bëgg challenge man man bëgguma routine di def benn affaire benn moment bu continuer day monotone si man je me dis euh, il faut ñuy changer il faut ñuy apporter en nouveau souffle. Mm-hmm. bi ma demee ba gis ne bon jeune laa woon ba tey ci métier bi am na loo xamante ne mënu goo fa yegg parce que dañ lay wax tolloo goo fa. Mm-hmm. et tey avec le recul su ma xoolee demee ne ils avaient raison ma fa woon mhm. ma def cinq ans je me suis dit je vais aller voir autre chose parce que lan ci sama ci ci encore une fois ci ni ma daan waxtaanee ak sama papa mhm. c'était entreprise doo fa nekk dugg cuur cap cuur cap bu yàggee sax les responsables ñu ne on peut pas avoir confiance mhm. en tel élément mais boo fa defee cinq ans nekk ci même statut xaw ma kii bi posture bi gisoo dara bouger mun ngaa dem xooli leneen waaw parce que ça te permet sinon di fa di nga fa def ati ati at et tu vas te rendre compte que mm-hmm. les années passent vite et tu faisais la même chose mm-hmm. amoo amoo possibilité di performer wala di yokk leneen mm-hmm. donc loolu bokk na si li nga xamante ne nii euh, jële na ma fa ma dem après euh, Africa 7 ah oui c'était c'était bref mais bon Africa 7 c'était plus euh, DG bi fa nekkoon moo ñu woon. Mhm. en disant aussi challenge la défi la foofu sax laa xamante ak Pape Ousmane Cissé. foofu laa xamante aussi ak Adja Cissé. Mhm, mhm. donc mu nekk foofu tamit kër. boo xamante ne nii Cheikh Barthélemy décédé récemment. foofu la ñu xamante woon également moom itam yàlla na ko yàlla yërëm parce que nit ku oyof la woon nit ku oyof man li ma ko côtoyé ci wàllu liggéey gis ku ku effacé ku wàcce boppam ba pare am rigueur qualité ci li nga xamante ne loolu la doon def mais ñooñu foofu ñu jaar dañ fa jaar ba boroom kër gi moo ñëw taxaw nañu maa leen indiloon. Mhm. yoratuma. ah loolu moom moo. loolu xanaa mën ngaa dem. wala <laughs> franchement mën nga dem parce que affaire quand def fii loolu laay cap euh, bi waaw loolu loolu moo indi ñun ñëpp ñu dem. <laughs> j'étais pas la seule xëy na yàlla moo def. Mhm. man maa ci euh, fës wala man maa si am benn jaar jaar bi ñu ci bàyyi xel. Mhm. mais ñun ñëpp fa nekkoon. Euh, ñu jugee Africa 7 j'ai marqué une toog naa euh, su ma juumul 4 mois boo xamante ne euh, maa ngi doon wut liggéey. Mm. c'était difficile. moo wër ba sonn aw ma après Mansour Sall. Mm-hmm. moo ma woo ne ma dañuy lancer une télé. wax ma projet bi wax ma wax ma wax ma et puis je me di dit ah ouais je ne fais rien pourquoi pas y dem xool. waaw ma dem taseeg Jupiter <laughs> ce qui était assez drôle mooy <laughs> dafa ne ma nii dafa ne Mansour yow ku tuuti kii mën na dara <laughs> après ma ma ma reetaan ma ne ko non non dama lay danga may danga may may trois mois. Mhm. trois mois yi nga natt ma. Mhm. soo ma nattee bu joxewul dara rek après mun nañ tàqali ko si yooyu yëpp xeetu dëgër fit la parce que maa ngi doon wax su ma su ma joxe occasion rek. ma mu ne won ko de tell sort que lii may wax nii man gëm-gëm la te moom laay mhm, doxee mhm. moom itam mu nekk nit koo xamante ne très ouvert d'esprit mhm. Jupiter laa gis nit nga ñëw proposer ko en concept ak lu mu mënta doon il t'écoute boo demee ba mu xam ne kii lii ñor la ko mu ne dama def pilote da lay bàyyi nga dem lii et c'est comme ça que j'ai commencé man sax à faire émission euh, Terra bi ma doon ba def foofu environnement fu ma bëgg dem mu accompagner ñu may def tournage yooyu noonu ak ñeneen ñi ci doon jàpp yépp équipe mhm. technique bi mhm. ba Tera dem ba 2017 ñu am trophée te c'est grâce à lui donc loolu tamit mhm. euh, moom moo ma ko may ndax aw ma woon tribune boobu noonu euh, bu ma fa toogee également un certain nombre d'années je me suis di def naa ba fii là il faut que j'aille voir autre chose nga nekkoon ci présentation journal rek waaw euh, présentation journal sama émission de temps en temps boo fekkee sa jouru liggéey la te amoo présentation mhm. ma jàpp ci élément rédaction loolu tamit euh, doon naa ko def mhm. euh, à un moment donné mu proposer ma toi-même tu sais ma mhm. bañ parce que oh. di dis ça c'est pas moi c'est pas mon profil parce que buggoo woon non dama ne mënuma ko j'ai même pas cherché à comprendre daf ma wax ma ne ko non autant de rubriques musiciens yi ñëw fii man jubitee xam nga ma man damay mhm. toog mhm. dem musicien ba ñëw wax mhm. après man ma nekk ci posture boo xamante ne nii nit ki mën na sax ruus fekk man maa bindoo noonu man je ne crois pas que je vais retrouver ci lii mu ne ma man sama mbébét mooy les grandes productions ay journalistes di ko porter parce que mooy tax mu am qualité lu raar waaw après na bu wax ma loolu. Mhm. les autres ñoom Pape Ousmane Père Sala ku nekk di wax Mbaye Sène les gens ont essayé convaincre ne ne mën na ne. bon comme toute chose boo xam ne bees na si yow c'était timide j'ai essayé de faire de mhm. mais les autres étaient aussi là pour me booster. mooy mhm. ñi nekkoon ci équipe bi yëpp ku ci nekk naa non nii baax na nga def dara même quand ci es un peu hésitante. soo génnee ñu ne la non baaxoon na man su ma doon yow lii laay doole lii lay doole. donc ñoom ñépp ñoo si jàpp pour ma mel noonu. te comme ñun ñëpp ñoo xamante woon di euh, bokkandoo <laughs> di naan kafe ci koto ci mbedd bi danaa benn jour ji na teen ma aram bàyyil tali bi ngeen di taxaw di naan ay café mhm. yéen <laughs> ci télé bi di fee bu ngeen génnee rek wàcc tax si mbedd di wax di xaqataay et tout ma ne ko waa d'accord nga dëgg ñoo ngi mhm. jéggalu mais c'était plus pour créer une une cohésion dans l'équipe et même moom ñu ko doon moom mi ñu doon wax bàyyi leen loolu mhm. dañu naan fekk si mbedd mi ñëw daan ne lan ngeen di naan ñu ne ko lii mu ne man tam jox leen benn <laughs> kaas nekk place pause café bi ngi noonu <laughs> <laughs> donc loolu loolu moo nekk lii bi rek production bu mag la woon mais ñu ci bëri ci leen découvrir que Aram dafa am caractère bu bu bu fort nga amoon fi benn émission boo xamante ni euh, vraiment tax nañu découvrir la et kuy ñëw sa plateau da koy da koy waaj dàq da ngaa dàq da ngaa dàq sa sa sa sa invité. non man xam nga léegi dañuy def plateau bàyyi nit muy yàq moroomu nitam te nekk fa. mais on a découvert jour boobu noonu kii Aram Touré. man damay naan li damay naan lépp si nit la. Mm. xam nga bi may commencé sànq dama ne la sama baaba daf may wax lii defal lii defal lii xam nga naan la da ngay dugg si kër sëriñ si. Mm. kër kilifa yi kër mm-hmm. am na tenue ak retenue parce que loolu tamit da ko war a bàyyi xel pour man nit ñi toog di seetaan. Mm-hmm. am loolu mu jaal si plateau bi c'est pas aram non. peut-être que Aïda Aram wala keneen mm-hmm. ñun mun na jàll ci suñu nopp si digeste amul problème entre ñun langage c'est grave mais je me ki ñuy seetaan ñu wax loolu te nit mun nay wax yaramam tàng. Mhm. mu wax loo xamante ne wax ba wax loo xam ne xëy na gënalu ko et euh, je m'y attendais pas am na parce que dama ne ko. Mhm. ni nga waxee pour man rafetul. am na ay xale yu ñu seetaan ak ay mag am na noo war a waxee. Mhm. mu dellu si waa cinéma nii laa mën a waxee. xam nga bu fekkee yéen lii laa mën a ko soxna si. du affaire de nit. man boo fi toogoon doon jéem saaga sax le président de la République du mu ko nangu. Mm. parce que pour man dafa am respect boo warloo ak kilifa yi. Mm. foofu laay foofu laay waxee. Mm-hmm. parce que man seetuma woon naa pare émission ñu ne ii tey moom waxtaan nañ ko émission bi lii. Mm-hmm. te plus pour la qualité. parce que pour man qualité bi mooy tax nit ñi euh, ne la lii dolli ko lii baaxul dolli lii et être émission bi dem ba am benn identité. Mm-hmm. mais c'est pas que Aram dafa. dafa carré dafa lii nit sax bu ñëwaanoon naan ma nii mais aram yow ah da nga metti de dégg naa li mën la pourtant je suis très gentille et tout <laughs> mais quand quand quand les caméras sont mm-hmm. damay ne suñu patron yi mm-hmm. joxewuñu courant ak yeneen yeneen bu ñu toog ci plateau yi di foo mm-hmm. xam nga donc euh, il faut aussi ñoom it li ñuy investir mu mu rentable et pour man nit ki bu la defee confiance ba dénk la yenn yi tu dois te surpasser moom aussi du du regretter xëy na nag mu nekk de petits flashs des épisodes yoo xamante ne nii mm-hmm. mais marqué dafa tombe rek dafa tombé marqué na marqué na sénégalais. <laughs> dafa tombé. mais nga ju nga nekkoon DTV à un moment nga ju nga jóge fa dem euh, TFM. non dama jógee DTV dem toog sama kër sama yaay wax ma ne ko damay noppalu. ok xam nga bii laaj nga ma sànq ma ne la ma marqué pause. waaw waaw dama nga marqué waat c'est que pour que nit yi dégg li may wax parce que wax dafa am solo. Mm-hmm. TFM musuma woo ne ma bàyyi DTV nga ñëw li non mm. c'était pas ça s'est pas passé comme ça moo tax il faut que <laughs> nit yi aussi ñuy <laughs> bàyyi xel li wax mm-hmm. dama dama arrêté ne sama yaay dama sonn dama bëgg noppalu mm-hmm. parce que chaque jour une quotidienne dafa dafa dafa difficile yow xam nga ci dara mm-hmm. et elle m'a dit waa mais lu tax nga bëgg lii lu tax bëgg arrêté dama rek xaw ma lan ma ne ko bàyyi ma jël au moins benn un mois ça me permettra de après ma xoolaat lu may def et quand j'ai pris kii bi pause bi <laughs> une semaine laa def une semaine. une semaine de pause. une semaine après <laughs> Bouba Ndour woo ma. Bouba voilà il m'a il m'a appelé. Mm. Euh, proposé ma liggéey et tout lu ma ko njëkk a xam mais Bouba yéen foofu y tellement de monde y a des gens am ngeen des gens de qualité et tout qu'est-ce que je viens venir faire là-bas. Mm-hmm. mu ne ma non aram euh, nit buy def lu baax day bëgg tout le temps tamit képp koo xamante ne moom jàpp na ni war na mën a yokk dara ci entreprise am da koy da koy lii. ñun mm-hmm. bokk noonu la ñuy fonctionner. Mm-hmm. et il a été vraiment très très euh, disponible euh, jàppale ma yu bëri bi may doog a yegg si et pour rek ma mettre à l'aise moom ak des gens yoo xam ne ñu ngi ci biir. mel ni Pierre Da Silva mhm. ak euh, Chérif Dia c'est des mhm. yoo xam ne laqaloon naa leen et <laughs> mais ils étaient tout le temps la Chérif damay xam ne waa arab waa garaaw carré yow ñëw rek taxaw de Chérif damaa sonn mu ne ma ñëw rek nga taxaw bu émission bi jeex ñu xool nooy mhm. noppaloo jàpp nañ ci. foofu c'était comment. jàpp nañ ci li nga fekkoon 2S def euh, DTV loolu nga fekk TV. Euh, xam nga soo dugg see fenn comme comme loolu laay wax ñu bëgg la ñu wóolu la denk la dara. et ñi fa nekkoon ñëpp ñi nga xamante ne considéré nañ comme ay kàngam ñu ne leen jàpp leen si. Mhm. parce que day doog a ñëw foog ngeen jàpp ci pour mu dem. je pense que loolu rek wane na wane na yoon bi donc boo ñëwee ñu jiital la tu te dis ah. Mhm. man ñii ñëpp mënuñu nekk à côté di journalistes de de de ñu ngi toog et man ma war a ñëw yaafus. Mhm. j'ai intérêt à être à la hauteur euh, ba nga xamante ne ñoom it du ñu ne ah ñu may boole ci lii mais. bon le projet ne pas vraiment bien bien mm-hmm. ficelé mm-hmm. te te loolu loolu tamit lañ ma loolu lañ ma wan mm-hmm. ma ma nekk fa di def di jéem yàlla xëy na moo def aussi mu am benn benn libi mais c'est une réflexion boo xam ni c'est une réflexion euh, commune nit ñi toog joxe seen xalaat waxtaan si ñu tëgg ko teg ko xëy na nag bon c'est du marketing. Mm-hmm. aram moo moo ñëw moom mooy si jigéen. nañ koo jox. Mm-hmm. et je pense que c'était bien trouver que direction bi xalaat loolu pour ne naa ko porter pour pour mu dem mais les gens étaient derrière à à pousser jàpp si pour que mu nekk. yenn saa yi di nga def émission mu mu mu jàll yenn saa nga def du du jàll te boo nekkee si loo xamante ni it xamoo ko. di mm-hmm. ngay am tamit. Euh, humilité reconnaître ne xamoo mhm. waaw man boo ma invité loo ku mel ni Mbaye Sène man mu ko naree poser ay question sport je vais juste rester si ni nga xam ne rek mooy de manière superficielle quoi mhm. mais pour bëgg a dem daf ma doon jaral ma woo Cheikh Tidiane Diagne eh. ne Cheikh Tidiane waa ah, tey ki laa am loo bëgg a waxtaan nga ah, lii de mooy prétexte waaye bëggoon naa xam mu ma soo ci dolli woon lii soo ci dolli woon lii ma def noonu ouverture d'esprit bi bokk na lu la jàppale ak yeneen secteur yoo xamante ne aussi su ma invité nit xaw ma damay woo ku xam ma ne ko diw laa bëgg invité loo si xalaat wala lii lañu kii lañu invité loo ci lii mm-hmm. xam nga et Chérif Dia aussi c'est un monsieur très très très très engagé très dégourdi mm-hmm. moom boo bëggee sax kii moom moo lay poussaat mm-hmm. moom ak Pierre voilà di la di la mayaat courage te da ko doon jëra sax yenn saa mu nekk si oreille bi naa ma lii wala Pierre na ma non Chérif nee lii pour te permettre aussi de de de faire une bonne émission aram la ñuy doon gis mais y tout toute une équipe derrière comme si moom mooy euh, nekkoo woon ko xamante ni dafa jàpp ni lépp dafa war a individuel euh, maanaam liggéey dafa laaj ouverture waaw soo soo bëggee xam nga nit moom yàlla def na bind nañu bàyyiwuñu ci benn microcosme mm, mm-hmm. daf ñu boole ci biir société njëkkee sa famille muy mm. yaatal boo nekkee ci mariage belle famille boo nekkee ci liggéey euh, pro bi professionnel dugg. Mm-hmm. nga am fa tamit beneen famille am na nu muy demee ñooñu. Mm-hmm. ngay gën a gis sax ka sa waa kër. man demoon naa ba suñu waa kër dañ ma doon tooñ naa ma kër gi dortoir la si yow parce que su ma sangoo yeewu génn. bu <laughs> ñii di tëdd yaa ngi ñëw. di di di balaa may ñëwaat mm-hmm. guddi na. donc euh, liggéey bi moo ko moo ko doon moo ko doon laaj. mais c'est c'est des expériences yoo xamante ne man j'ai pas regretté. parce que nekk na loo xamante ne nii am na lu mu lu mu indiwaat. kon lu tax desoo parce que on on aimait bien quand même d'info. ñu déggoo déggoo ma la man man bëgguma bëgguma kii. parce que neen dëgg bëri histoire franchement. ndax oh, neen aram bizarre bizarre bëri fort caractère <laughs> jaay metti moo waral euh, tamit mu daal di rendre le tablier <laughs> neneen maa ngi dem. xam nga bëri histoire man damay bëgg ko taxaw ne maag aram. wax na ma delloo ko loolu loolu laay bëgg dégg parce que man su nee ma nit ne uh-huh. da nga bëri histoire daf uh-huh. may jaaxal parce que taxuma xuloo ak nit dama koy uh-huh. éviter sax par contre sañ naa ne duma def man xëy na foofu lañ naan kii dafa dëgër bopp dafa woole mm. tu ma fais faire une chose euh, moo xam reportage la te lii nu woon sax TFM fu ma jógee mm. ma ñëw nga ne ma nga ne ma ah diw de lii de la xalaatoon nga def lii de man la na si yoon lii du yoon léegi nag soo bëggee ñu def ko après nag xam suñ professeur dañuy xas dañuy mm-hmm. yónnee message li ngeen def baaxul affaire yooyu xam nga te rus naa mu woo may may wax lu dul dëgg wala may jéem a trouver euh, subterfuge wax ko loo xamante ne ni amul mm-hmm. donc damay ne lii mooy yoon si suñu liggéey mm. léegi nag yow xam nga lan nga bëgg saa aussi c'est autre chose léegi nag nit man gisuma kenn ku lay dóor benn patron la presse ne la mhm. par force da ngay def lii mhm. musuma ko gis amul moo tax ma ne am na loo xamante ne nit la am na koo xamante ne moom day taxaw ne la man duma ma journaliste yéen yéen journaliste mhm. doxal leen mais kooku dafa am des gens qui le mu ngi ci millier businessman la peut-être dina am ay patron wala ay responsable yu ko approché wax ko dara mu ñëw àggee la ko mais san ne veut pas dire que da nga ko war a def Mm. foofu foofu laay waxee quoi. journaliste bi la en bi la. parce que am na lu ñu moo ñaale si muy éthique ak déontologie. wa man de man de ndax am naa éthique ak déontologie <laughs> waaye damay ne euh, am na loo xamante ne bon encore une fois damay dellu si si si ni ñu ma yaree. Mm. pour man lu dul yoon du yoon parce que tout simplement wax bi ëllëg moo tax. dafa jar a sóor mhm. tu une chose tey suba nga xëy ñu ne lii mhm. cette histoire de Aram dafa pang dafa def lii dafa lii ça me suit jusqu'à présent ba léegi nit yi dañ naan euh, Aram dafa def lii wala mhm. wax na ba diw gedd plateau wala diw wax na ko lii euh, c'est pas méchant parce que damay ne dérangé wu la non non <laughs> non wu ma euh, damay ne rek j'ai le regret de voir ces gens partir wala am benn attitude bi ci plateau bi mu mu mu bàyyi ko ci man parce que su ma sañoon du du demee noonu mm. émission bi day jàll si ni li nga xam ne moom la nit yi di xaar ba mu jeex mais su mm. amee koo xamante ne xëy na euh, dënnam jug na si mu lii on des humains suñu paree dañuy déggante dañuy waxtaan dañuy tel et tel donc je me dis man euh, jàppaluma jàppaluma ni dara tout mm. simplement parce que boo toogoon sa kër yam sa ruq kenn du toog si mbedd bi di wax say wax mais yàlla moo def mm-hmm. ñu nekk ci média mhm. te média aussi euh, ça a ses risques bu dul média kese sax laa lay wax mhm. wax rek mhm. da ko war a seetaat am na nooy waxee ça cause plus de dégâts que que leneen te te te man euh, joxewuma ay leçons c'est-à-dire je personne pour donner des leçons aw ma sax euh, autant de bagou pour taxaw naan damay jox kenn lii gëw ma loolu man man dama gëm ne Euh, damay jàng te ñi nga xamante ne dañu contribuer ci sama jaar-jaar ba tey ma mm-hmm. taxaw nekk euh, Aram Touré bi ma nekk ñooñu noonu pour les rendre fiers dama war a fexe ba liñ ma jàngal duma ko biaisé wala du ma am leneen lu ma siy dugal. en fait loolu mooy conditionné man ni may fonctionner. ba tey ba tey feneen foo demoon tamit euh, loolu la donc te TFM du du histoire de defal ma bañ moom moo la fa. non déedéet donc ah tase naa si mbedd sa nit mu naa bu daa yow TFM neex na de. waaw la moo tax nga jóge fa. parce que je pense que Tamba la donc j'étais là à me <laughs> oh my waaw donc gis nga. c'est pour te dire que nit mm-hmm. yi aussi euh, wax nañ dëgg am na loo xamante ne. ñoom ñoo ko moom si yow moo tax dam leen di dam leen di may ñu am sañ-sañ boobu pour wax ma li ñu xalaat wax ma li nga xam ne jàpp nañ ne du yoon wax ma wax ma il est pas dit ko man décision bu ma jël lekk c'est la meilleure décision de ma vie et tout je pense que ñun ñëpp ci àddina am na loo xamante ne da nga koy def ngay avancer nga def erreur nga jubanti nga continuer sinon bu lépp linéaire oon si si si àddina bi du baax hmm. waaw li hmm. Père doon wax naan bu bu ñëpp yemoon cër am ñu gedd seen seen wàll waaw parce que pour man jàngat la aussi ay erreur si si si àddina mhm. ci ci lu mënta doon nag mhm. boo jumee nga nangu ne juum nga euh, boo defee erreur nangu ko aussi nga togaat xalaataat yeddaat sa bopp mais nag du tax aussi ma def erreur moo tax ma war fa taxaw rek def du sur place bii nii regretté woo ko sa départ de 2 parce que moo nekkoon sa ñaareelu dugg. bii nii bii nga bii nii nga dem. non <laughs> xam nga sànq euh, en off the record. yaa may laaj may mm-hmm. ma lay ma lay wax. Mm-hmm. Euh, je suis dans une ONG. Mm-hmm. boo xamante ne nii maa ngi si si Kombe. Euh, bi may bi may commencé donc ñoom xam nañ ni man journaliste la donc à aucun moment ils m'ont demandé de mettre de côté li may def. ak. Euh, liggéey boobu mhm. mais je te donne un exemple très simple mhm. il m'est arrivé ma jógee Ziguinchor wàcc aéroport dix-huit heures ma ñëw sama kër sangu solu dem 2STV plateau mhm. en finalement yaram-yaram la à un rythme boo xamante ne su ma ko daan continuer man dinaa sonn euh, li mu war a joxe du mu ko ko jox wala may demander permission pour mën a bouger et toutes ces choses là ont fait qu'à un moment donné ma toog ma waxtaan ak direction bi. Mhm. mais ne lii moo am man damay bouger te déplacement yooyu bëgguma di ñëw di di muy nekk impact ci liggéey bi chaque fois rek manaan leen damaa mhm. bëgg a dem fii bu yàggee sax. Mhm. day indi euh, leneen walla nit yi yaakaar ne leneen la donc euh, may leen ma ma mën a dem concentré wu ci li nga xam ne ci laa nekk nii et c'était c'était su ma juumul ay mois de juin. juin bi juin 2022 2022 juin 2022 mhm. direction bi nangul ma ko ma ma toogaat ba juillet bi ñu woo ma ne ma comme tamit sa liggéey bee permettre na la nga mën a continuer tes activités est-ce que doo ñëw si législative yi nga participer ci liggéey bi mhm. parce que yow fii sa kër la mhm. et je suis venue aussi euh, participer Euh, te chaque fois bu ñu ma liggéey la wax dëgg yàlla fay nañ donc c' est pas quelque chose boo xam ne dañ ma ko def loo rek na ma li mais. nekkatul woon à temps nekkatul woon à donc man maa toog ba législative yi jeexee ma ne leen du ma mënati continuer je je marque une pause par il le faut. présentation journal nga nekkoon. waaw dama doon journal dama doon def tamit benn euh, hebdomadaire euh, les vendredis. tout mhm. est Euh, ñaar yooyu noonu laa la laa doon def mm-hmm. maintenant le seul le seul problème mooy boole woon ñaari yi c'était c'était assez compliqué et comme on dit <laughs> on peut pas vouloir visser une ampoule et se caresser les fesses <laughs> léegi léegi sa départ euh, léegi xam nañu un peu déggoon nañu histoire bi nga raconté li waral euh, tamit bokk ci nga dem ba tey ci am na yoo xamante ne duma ko nangu la aujourd'hui sa relation ak sa patron ndax gis nañu lu lu jege woon la euh, lu leen lié actuellement. ban ban patron nga El Hadj Ndiaye. sama patron ONG wala patron. El Hadj Ndiaye de de suivi. El Hadj <laughs> euh, man man fàttaliku ma fu mu ne aram wala xanaa bu koy wax aram sama ginnaaw la koy wax. Mm. man maa toujours appelé la petite Touré. Mm-hmm. la petite Touré la ma mës a wooye ma rombee parce que El Hadj Ousseh ku ko xam-xam ni c'est un géant comparé ak man. Mhm. mais su ma nee appelez la petite Touré tel et tel. Mhm. et euh, musuma woo tamit bureau am naan ma euh, dama bëgg nga doxalee nii wala damaa bëgg nga doxalee nii. Mhm. mais liggéey boo koy doxal pour man nit bu euh, nanguwul yenn affaires yi da nga am honnêteté wu. nga nga nga nga génn fa boo ci gisul sa bopp. su fekkee tamit leneen moo la jitteel nga dem feneen mais monsieur Ndiaye man man man arrêté naa deses mhm. demaat fa waaw euh, dugg si waroon gis ma dem Ndiaye ma fekk ko si bunt bi mhm. apparemment lui xamu woon sax man dem naa pause di def leneen maa m'a dit mais toi danga ma bàyyi léegi xanaa nekkatuma sa papa wala li ak la mhm, quand les gens me disent euh, nga am problème ak tel et donc c'est une construction boo xamante ne nii ñaa ngi koy def mhm. te yàlla def na xëy na dernier mois lañ mais doog ko gis may génn di wax waaw mais euh, ku amul lu mu yàq si si si yéen ku ma ku ma xam-xam ne man nekkuma genre bi nga xamante ne nii euh, ku wax nga bëgg a tontu ko mënul sax nekk mhm. donc quand je regarde le pays damay ne am na ñu fi nekk am daraja am lépp nit ñi bàyyiwuñu la waaw c'est vrai. bu dee <laughs> man simple Aram Touré <laughs> demoon maay rëcc <laughs> donc euh, si on cherche avoir l'unanimité mhm. c'est pas de ce monde mënul nekk mhm. euh, loolu ku ko xam rek dangay ngay noppal sa bopp mais maintenant nag il faut essayer de faire de son mieux de telle sorte que dépassé maa ngi koy wax bi ma toogeek ñoom Pape Ousmane si sama leen mhm. yàlla nañu yàlla musal ci accident lamine waaw ñu ree man leen parce que euh, doon naa dégg Père bii Bigué doon ko wax mhm. euh, xëy na ñun bi mu ko waxee dañoo ree mhm. mais encore une fois plus ngay avancer dans la vie plus ngay jànkonteeg yenn affaires yi plus ngay comprendre le sens de certains des mots yi nga xam doon na ko yëkkati bokk na ci ci ci yow li la li nga rafetluwul moom mooy ngay liggéey sa liggéey par exemple euh, élève euh, euh, journal nu mu toll ñu ci dugal loo xamante ni bokk ci te pourtant gis nañ ko RTS muy suñu télévision nationale ñu ñu souhaité fa un joyeux anniversaire Racine Talla mu mel ni jàppee wuñ ko dara. non non il faut ñu ñu ñu lii leen. Mm. maison de presse yi dafa am ay rédacteur en chef dañ koy fàtte. Mm. yàlla def na borom tur yi comme moom rek lañuy la ñuy dégg. moo tax su nit nee ne dañ la def loolu yi tudd patron ba yenn saa yi damay ree rek noppi. Hmm. parce que aussi euh, je sais lire entre les lignes dafa am loo xamante ne ni moo moo am gis nga liggéey bi soxlawul euh, ñu lay ñu lay euh, conditionné parce que ku ci nekk responsable nga xam nga luy lu baax xam nga luy lu bon. Hmm. man su ma taxawee ne. lii nii mënu journal la xam nga am na télé boo xamante ne toog naa fa def journal chef d'édition bi moo taxaw ne ma Aram Touré mu ne ah, ma lii nii de pour man lii du jaay journal lii mën nañ ko génne de. Mm-hmm. ma ne ko ah man dama xaar nga wax ma ko mu ne mën nañu ko génne. Mm-hmm. c'est-à-dire avec peu d'éléments d'accord mais qui est quelque chose de de bon. Mm-hmm. chef d'édition bi wax ma loolu ma def. am na feneen foo xamante ne dañ lay tegal menu. imposé la. doo gis sax le rédacteur en chef. ah xëy na def na réunion la matin man boo vingt heures yi yi yi ma def xanaa DTV moom nga xam ne moom xam naa sama dund bi <laughs> itam leen ko joxoon parce que aussi doo nekk responsable mm-hmm. de rédaction te doo mm-hmm. participer si yenn affaires yi mm-hmm. mais euh, kër yi ma jaar nga xamante ne journal naa te journal ba mu am un rédacteur en chef moom mooy def réunion bi le matin et tout man su ma daan ñëw en début d'après-midi la pour ñëw fekkee beneen réunion bi am à quinze heures toog préparer sama journal. yenn mhm. saa yi yenn yi dañ ma koy sax. Mhm. exemple par rapport ak encore li may wax yeneen activité li may def. Mhm. mais du tere su ma ñëwee su ñu tegee menu au fil de la journée kan su ñun moo dul suivre actu di xool di bàyyi xel yenn affaires yi et tout. parce que bu dul sax métier bi ngay liggéey mais a waa kër ñooy yaakaar lu ñu dégg rek war nga ko xam. bu ñu ma woowee laaj ma lu si ëpp man leen xaw ma ñu ne waa yow doo journaliste ma ne ah mais journaliste ne veut pas dire je connais forcément da war a xam yëpp xaw ma lépp am na loo <laughs> xamante aw ma ci benn information mhm. maa yéen a si yem mhm. donc foofu laay ne buñ la définir le menu bi tegal la ko mhm. ñëw ne la lii ngay journal yi ma ñëw xool di bind di bind beneen benn mois ma gis benn lii beneen lii après ma pare ma ne ko ah chef d'édition bi lii de xanaa def des na yeneen élément dañu xaar ah, le temps que ñeneen yoon yónni ñu xool mu ne ma lii la xanaa buy dara amalee peut-être correspondant bi dool li wala mm-hmm. leneen am ma ne ko ah lii doy na waa di mun génne titre ku am seetlu dëgg def naa plusieurs fois journal yoo xamante amul titre mm-hmm. parce que pour man xaw ma fa laay commencer wala bu ma nee ni benn tiitre lay dool te benn titre moom gisuma événement bu extraordinaire bu xew ci mm-hmm. journée ba ma mën a def un seul grand titre bu ma naree toog di def titre te xam nañ ni semblant de titre foofu lay en fait Euh, meree ñu bëri cest à lu dul yoon xam nañu du yoon et je ne personne pour diir que du yoon mm. yow di ko xam keneen xam ko keneen xam ko mais li ma si jaaxal mooy dañ naan lu tax aram mooy wax comme si man maa am sañ-sañ bi wala déedéet mm-hmm. ça va question de dafa am fu ma teg sama bopp wala lii man teguma sama bopp fii est-ce que du loolu parce que du loolu. non non ni que min nga. non je ne suis personne dans ce pays. man ah, ah, ah, Aïda yow xam ma dama noppal sama dund. <laughs> je ne suis personne dans ce pays personne. donc su amee loo xamante ne nii wax naa ko su teguma ko ci kaw ay maay lii maay laa et je le répète très souvent journal émission lu mu mënta doon quand on écrit non non day jàll. ci mm. quelques secondes. logo bi moo fay des donc logo mooy star bi mhm. logo bi mooy kër gi mhm. du du ñun mhm. la preuve nit yi dañuy dem keneen ñëwaat keneen da koy def ainsi de suite ainsi de suite montrer que nul n'est indispensable personne n'est loolu nag ku ko xam ci sa àddina da ngay jiital immunité mais dëggu léegi nag man su ma demee ba les gens me demandent naay maslaa même su dee dëgg la euh, bu bu mu gaañ nit ki d'accord naa. Mhm. mais su dee dëgg boo xamante ne man lay gaañ man d'accord naa def dëgg boobu. naka ngay gisee le fait que tey ci maison de presse yu bëri daanaka li ngay def moom dafay neex kii moom télé bi du ma wax rédacteur en chef bi de par rapport ak bu ñu demee ci biir rédaction mais li neex borom kër gi loolu ngay def mooy dindi par exemple ci journal bi wala moom mooy dugal par exemple ci journal bi boo ko bañee am na ñu koy nangu. waaw moo tax nag heureusement que mu am cette diversité là mu am ñuy bañ ak ñuy nangu. sinon ce ak fi mu yóbbu presse bi léegi. parce que ce serait compliqué. Hmm. Euh, Aïda yaa may indil problème yaa may indil problème parce que. <laughs> non jàngat la rek. ci en réalité ci li ñuy gis. encore une fois je donne une position boo xamante ni c'est personnel. Mm-hmm. dafa am loo xamante ne nit la. xam nga sànq dama ne la boo nekkee fenn di liggéey nga dem ba gisatoo ci sa bopp mm. da ngay dem. médias mm-hmm. yi ñoo am coow bii nii wala peut-être ñi nekk ci sphère politique bi mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci entreprise yi ñu ngi ci koñ yi ñu ngi ci yenn bërëb yi di liggéey jóge nañu fii dem fee taaba taaba demaat feneen demaat feneen. Mm-hmm. yàlla moo tudd loolu ci seen ci seen dund. ça ne veut pas dire que nit ki dafa bëgg rekk. Euh, mm-hmm. di di di cut fii cut fële. ça c'est bu buñ la santee loo xamante ne nii da ko bëgg a def. Mhm. nit ñi ñoom moom seen bopp. le Sénégal c'est pas un, un, un tribunal du benn salle d'audience bu mag buñ teg ne force lii ngay def force lii ku ko nangu libre à de faire. su amee nag benn Aram Touré bu woowee comme ni ñuy wax loolu bu mhm. metti bu moo xamante ne danga naan ko defal mu ne ma loolu c'est Aram Touré. Mhm. ça ne veut pas dire que les gens noonu la ñu war a doxalee man dafa am noo xamante ne noonu la ma mooñaale ba léegi nii mhm. noonu lay jéem a doxee après nag boo xamante ne comme li dëgg bu nar ak gaañ nit ma mhm. xool ni ma koy et je ne manque pas de même kilifa sax bu may wax ak yow am na noo xamante ne nii noonu lay waxee ak yow mhm. bu dee sama rakk sax am naa nu may waxee moom parce que bugguma yenn wax yi mu am nu mu koy téye ci moom mhm. donc am na nit noo xamante ne noonu ngay waxeek moom ba nga xamante ne ni doo ko manquer de respect doo wax lu ëpp doo wax lii mais au moins dina xam ni ah kii li muy wax nii de mhm. ferme na ci position dootul changer nii la ko gisee mhm. alors euh, transition la may servir mu jógee ci Aram Touré ak gis-gisam mais dem ci li journaliste yi di subir parce que tey bu ñu xoolee ci at yi diggante daaw ak ren li ñuy li ñuy li ñuy tëj ci journaliste wala lu muy am problème ak yoon dafay mel ni moom kuy naan ndox mu ndox ndox mu sedd yomb na torop gis nañ récemment après l'histoire de Pape Alé ak taxawaay bi ci journaliste yi def mu génn dugaat tey ñu ngi ñuy wax que ni arrêté waat nañ suñu beneen confrère boo xam te ni nekk na Walfadjri Euh, Pape Ndiaye exactement nekk jamono joo xam ne ñëwee na fii suñu président de la République waxoon quand même duñu duñu fi tee journaliste mais na un paradox tamit ñëw na euh, sa point de vue par rapport ak situation actuelle journaliste yi ñu ñu ñu jàpp bëgg naa dellusiwaat si loo xamante ne waxaat waxoon naa ko mhm. damay mhm. répété wu rek mhm. dama def un tweet bi ñu téye Pape Alé mu bind la place euh, d'un journaliste n'est pas en prison def hashtag free Pape Alé et tout euh, et j'ai vu réaction bu mu bu mu mu am après des gens qui disaient non li ñeneen dans les commentaires beaucoup plus virulents lu tax lii lu tax laa xam nga li nga wax tegoo ko fenn lu tax journaliste kenn waru ko tëj lu tax lu tax lu tax am keneen ku ku xamante ne euh, bu yàggul dara ci Pape Ndiaye ma ne li ma mm-hmm. li ma waxoon te ñaanal ko Pape Alé mu génn parce que keneen ku mu daloon nit dañ koy ñaanal mm-hmm. euh, mu mu génn ñu ne da koy da koy da nga koy défendre moo tax nga waxee noonu mm-hmm. je parle d'un principe dafa am des gens yoo xamante ne ñooñu nga tudd léegi dañ fi nekk à un de la vie ñu def liggéey liggéey boo xamante ne muy yow muy man muy keneen jox nañ la info walla gindi nañ la ci dara wala poussé nañ la aska nga dem gëstu ci dara mm-hmm. donc kooku pour man société bi am na lu mu warloo ak moom san ba veut pas nit du juum mm-hmm. la preuve ngay gis ñoo xamante ne chaque jour nga xëy na am foo leen di xoolee mu gis nga gis mm-hmm. leen feneen xëy na aram yaa ngi koy xoolee benn kanam bii boo xëyoon suba gis dara si nga ne ay kii bett na ma mhm. foofu laay waxee mhm. une image n'est jamais polissée euh, de façon parfet loolu man gëw ma ko mhm. on a on a des choses yoo xamante ne si nit la nit day day def erreur nit day wax loo xam ne lii mhm. mais quand je parle du principe maanaam su ma nee journaliste du nekk du nekk kaso ça ne veut dire que journaliste c'est benn super héros wala c'est une personne à part qui se croit au-dessus de tout et non non voilà. merci beaucoup mm -hmm. c'est comme tout le monde mais dafa lu ma gëm maanaam man nit bu defee erreur ci koo xamante ne am na lu mu doon jëriñ société bi wala mu koy jëriñ ba tey sanction yi mu mun na am lu ñu liste mu mhm. bañ a ñàkk mhm. moo xam dañuy nangu carte de presse moo xam dañ koy tereeti exercer mhm. moo xam moo xam pour man soxlawul ñuy ñuy ñuy ñuy jàpp nit ki et ça devrait pousser les gens à se demander mais c'est quoi le souci nit ki lu mu wax bu dee dëgg la nit ñu xam bu dee du dëgg tamit ñu xam mais dafa war a pousser askan ñu dem ñu leeralal askan bi donc bu ñu nee nit ki na génn nit day jéggale ah, boo jéggalee ba pare mhm. nga jéllale c'est important xam mhm. ah, nga mun naa ne ay da nga def ma dara léegi kobos ma kii ma mu metta ma ne baal naa ko waaw maa ngi lay xaar suba bu ma jekkoo occasion ba mën a fayu ma fayu kon kooku mosuma jéllale cette histoire mhm. loolu moo am solo dans cette vie maanaam lépp day jeex poste boo mën a am dara ja boo mënta am et tout day jeex dañuy tëdd ñu teg ñu suuf juge bu mag bi di xaar ci loo xamante ne nii man li may noo wax sama petite sœur ma naan ko sama écran géant bu ko yàlla na ree teg rek man doy na ma kaa donc problème mu keneen doyum léegi tey ni ñuy doxalee ndax jàppoo ni quand même liberté d'expression bi dina ko wàññi quand nit ñi dañu ragal nit ñi dañu ragal ñu wax ko ñu ñàkk ko wax nit ñi mm-hmm. dañu ragal. Euh, nekk si dëkk nag nga ne man ñemewu ma wax wala su ma waxee lii est-ce que duñ ma téye wala est-ce que su ma waxee lii mm-hmm. ça pousse les gens ñu ragal te ragal boobu noonu man yaakaaruma bokk na si luy su luy jëmmal réew liy demal réew kanam surtout ak démocratie buñ koy wax bokk na ci liberté waaw xam nga xam nga man man arab man euh, connexion yu Pape Alé am aw ko mm-hmm. Pape Ndiaye euh, connexion yu mu am man aw ko Pape euh, Pape Alé journaliste d'investigation ñu nangul ko ko mm-hmm. waxuma Sénégal ba à l'étranger dañ ko ko nangul mm-hmm. euh, bu yëkkatee loo xamante ne nii teg na ko sur la place te du dëkk man damay pousser la réflexion plus loin damay ne si à quel dessein pour taal réew mi la bu ñu taalee réew mi ñun ñëpp kenn du ci mucc mm-hmm. ñëpp lay laal mm-hmm. donc man damay ne chaque fois bu dara nekkee ci pénc mi nañ ko càmbar ñu xool bu journaliste bi waxee loo xam ne safaan ba la ñu def les sanctions yi nga xam ne mooy requise bu journaliste waxee loo xam ne dëgg la ñu tamit tëddee njaaxanaay mm-hmm. mais on peut pas être là nga ne nit ki bu mu wax mu wax dara ñu ne ñu tax ñu wax ko mm-hmm. te am na yeneen dossiers yu fi sulli yoo xamante ne c'est des médias internationaux ñoo ko teg sur la table kenn Euh, yëkkatiwul justice wala ne damay def lii wala damay def lii mhm. donc à plus forte raison sa biir dëkk mu nekk ay nit ñoo xamante ne à un moment donné am na lu ñu jëriñ société bi mhm. parce que nit yi vidéo yi dañuy circuler ak yeneen ak yeneen ñuy gis à mhm. un moment donné am na kooku loo xamante ne def na ko ci sa jaar-jaar donc ku dul tooñ amul mais man damay ne nañu firndeel ni nit ki dafa tooñ parce que pour man taxaw rek ne diw lu mu wax nii teg ko fenn. Mhm. loolu un scientifique du procédé. de avec, la sorte avec sept tamit euh, yu teg ci kawam. yoon yoon yoon na yoon na yoon mooy mooy mooy xool li nga xamante ne nii moom lay moom lay doxale jàpp ni diis na jàpp man xam nga man je ne man man du ma juge. Mhm. du ma tel du ma du ma. en ci posture bi ma toog nii. Mhm. yoruma document wala këyit bu may firndeel ne li ñu wax ñoom man teg naa ci loxo wala teg naa ci bët foofu lay waxee cest à am na loo xam ne mën nañ ko leeral te duñu noot je ne sais pas si mën nga leeral te doo noot. ja jaru woon ñuy egg fii. jaru woon ñuy egg fii mais mën nga leeral. Mhm. parce que ça devrait pousser les gens à la réflexion. tout n'est pas rose. Mm-hmm. tout n'est pas rose il faut ñu reconnaître ko. Mm-hmm. te loolu nag bu ñu ko xamee nag dañuy war def de telle sorte que nu ñuy doxalee avec euh, nit yi ñu xool leen. Mm-hmm. y a des yoo xamante ne nii buñ fi nekkee man mii Touré su ma su ma su ma defoon erreur. wala ma wax dara. ma génn si biti ñu ne ma nii yóbbu sama yóbbu ma tëj ma. ci kaw aram dafa wax wala elle di dit wala euh, dafa xaw a accusé diw wala propos yu mu wax c'est pas mhm. respectueux et tout y des gens ñu ngi fii ci kër gi nekk ay sëriñ ñu leen di wax lu dul yoon waaw dañ ci yóbbu kenn kaso wala ñu ne kenn dañ koy tëj wala lii mhm. ñoom ñoo ñu gën a baax wala ñoom ñoo ñu gën a lii wala il faut qu'on se des questions et qu'on soit plus euh, euh, il faut que nii ñu am yërmande mais aussi ñu jiital suñuy xel. Hmm. am na solo bañ a bañ a réagir rek ci loo xam ni passion la. dama koy wax benn jour Pape Ousmane. ñuy hmm. muy reetaan ma ne ko dama seetaan benn <laughs> benn séquence. le président Macron nekkoon en déplacement. Hmm. mu génn nit ñaa ngi taxaw ci biti. muy romb di nuyoo di nuyoo arrivé en gars barbe bi taxaw nii monsieur le président monsieur le président mu taxaw. mu ne ko je jamais vu un président aussi menteur que vous. mu ne ko ah oui mais pourquoi débattons. c'est ça ce qui m'a peut-être nit yi dañ naan tollaguñu foofu ci Sénégal ci ci wàllu xalaat ak ci ci ci ni ñuy doxalee ci société bi mais li ma si marqué mooy ay lii di ku ko waxoon foofu noonu sur place takk article 80 tëj na. <laughs> dootoo ko defati de dootoo ko defati. <laughs> oui xam nga xam nga euh, nit. Mm-hmm. soxlawu sax muy nekk kilifa mais mën nga jàkkaarloo moom nga wax li li mu def nii teguwul si yoon te doo ko manqué respect. Mm-hmm. loolu mun na nekk moo tax il faut ko nit yi ñu bàyyi xel aussi mhm. ne su la yàlla dénkee yenn cëri mhm. du pour exercer le pois il faut savoir aussi encaisser lu baaxul kenn newul ne baax na lu dul mhm. yoon kenn newul na yoon mais na fekk ñu jëfe ko ci ñépp ku ñu war a rëq sa ndigg moo xam doo journaliste journaliste nga ak lépp ñu teg ko ci yoon mais bu dee aram mi wax nu lu ëpp man nag ma am fu ma ko wékk ba su ma leeree ne man su ma rombee du ma du ma dara duma topp mm. ayda xëy def dara ñu jël ayda teg loxo alors que ñu ne aram journaliste la ayda journaliste la mm-hmm. loolu nopp mënu ko dégg mm. donc suñu doon yamala rek yaakaar naa population bi du ñu am ce regard la di mm. di am nu ñuy xalaatee wala di mettitlu par rapport ak ni ñuy doxalee ak nit est-ce que da jàpp ni sa gis-gis parce que ñenn ñi ñu ngi génn di ŋàññi journaliste yi journaliste yi ñaññeenti ci seen biir. le fait que nee nañ xas ñun nee nañ amuñu solidarité. surtout face quand même à problème. waaw loolu loolu ku ko wax dana ma jaaxal parce que man j'ai vu des des sorties euh, si si kaaw Pape Alé par exemple. Mm-hmm. Euh, waa kap mm-hmm. wax nañ ci. Mm-hmm. il y a nocturne bu amoon maison de la presse. Mm vu des gens là-bas. ci image yi ma gis. donc euh, loolu ñu taxaw ne euh, mm-hmm. jàppale wuñu mm-hmm. maintenant euh, y a communiqué bu jógee si si CAP si kaawu Pape Ale astafurlah Pape Ndiaye Pape Ndiaye oui ça ne veut pas dire que mm-hmm. nit yi dañu naan soutenir uñ ñoom fa ñu toll ba jàngat ba ne ñu ngi ciy gëstu ñu ngi koy suivre de très près mm. tolluñu foofu ah, wala ñu bëri tolluñu foofu il faut que aussi ñuy éviter di interpréter di mhm. document mhm. ñu bind benn affaire nga ne noo fii la nit ki doon xalaatee non non fee la doon xalaatee loolu mooy indi muy am étincelle yooyu ci biir nit yi maanaam di yëkkati dënn yi wala dara mhm, fan la ñu teg ne euh, lii nii dañu waroon taxaw de façon claire et nette ne ñoo ngi jàppale diw ils ont raison de dire dañuy dem wëri ji xool enquête ba pare loolu war nañ ko nangul ko nekk. ñoom jàpp nañ ni tamit dafa yeex ndax bu doon euh, ñeneen syndicalistes yi nekk ci yeneen corps du ñu jël ce temps. est-ce que est-ce que est-ce que li ñuy wax benn la est-ce que est-ce que liir ngeen walla liir nañu chef d'accusation yi ñuy wax dafa am loo xam ni boo ko liiree da nga naan lii dafa rëy. Mm-hmm. da nga naan dafa rëy. mais en réalité dafa loolu laa wax man boo ko liiree da nga mm-hmm. naan lii dafa rëy. Mm-hmm. donc. mënoo produire comme ça un document taxaw daan ne ñoo ngi def lii nii nii nii nañ dem seeti nit ki nañ dem waxtaan ak ay avocat nañ dem nañ dem nañ dem mm-hmm. amaana sax ñu ngi koy def mm-hmm. après ñu doogee mën taxaw kat ci li ñu jot a gëstu mm-hmm. lii ak lii mais il faut pas que dara am teel ñu ne ñu ci xaar nit yi ñu ngi lii ñu non il faut ñu réagir tey il faut ñu wax. du noonu sinon kap dina génn wax suba ñu ne juum nañu waxee nañu nii te warul woon. alors suñu suñu point bu mujj la ñuy def parce que wax naa la réew mi mënuñ ko wax te waxuñu politique. Euh, justice certes mais politicien wax na tey nekkoon fi ex ministre euh, daal di poser des questions. Mm, président de la république la ko posé concernant nag ci point yu bëri bokk na ci sax ci présidentielle bi ñuy doon wax euh, ba la révision des des des fichiers sax wax nañ ne àpp nañ ko finalement mais Hadjibou Soumaré ñu convoqué woon tey sûreté urbaine parce que dafa laajte que ni ndax président de la république dafa jël 7 milliards may ko kii di Marine Le Pen euh, jàppoon nga ndax mbir mi jaroon yegg fii. nga dama lay delluwaat li ma wax sànq je ni juge ni magistrat pour wax yenn affaire yi mhm. man da damay bëgg laajaat la dara mhm. ndax dañuy tere laajte ci réew mi ah laajte kay yoon na yaa ngi nii toog ma tax ma delloo la li bi dama leen dañuy tere euh, laajte mhm. euh, pour man loo xamante ne dañ ko yónnee mu retrouver wu après sur la place publique ba tey mu àgg fi mu àgg dafa am loo xamante ne euh, dañ ko war a éviter dans ce pays mm-hmm. dama wax bale passé ne dans un plateau buñ ma invité woon dafa am jaar-jaar boo xamante ne président Macky Sall daf ko am ci lu mu réaliser ci lu mu jot a def ci taxawaay bu mu am mm-hmm. euh, Union africaine euh, ci CEDEAO bokk na ci président yi nga xamante ne gis nañu nu muy nu muy doxale ba ci niveau diplomatie mm-hmm. euh, waruñu toog ba heure bi wala boog moom warul toog ba heure bi muy nangu luy gàqal deram mhm. ci ci li nga xamante ne nii jot na ko def amaana nit yi dañuy dégg ne euh, loolu moo tax ndeysaan réew mi li ma naan neexul waxee mhm. boo waxee ñu ne fii la far nga wax ñu ne fële la far man ki ma faral mhm. sama carte électeur moo koy xam mu duggee ca urne ba ba tànn ko ba lii ko foofu la yem man yàlla sama urne boobu ka fa nekkoon mm-hmm. kenn du xam lii la soxlawul euh, nit yi di taxaw di waxe benn position pour xam ne fii lañ bokk mm-hmm. man j'ai pas besoin de les défentre parce que je ne bosse pas pour eux même su ma doon liggéey ak ñoom mm-hmm. euh, fayuñu ma embauché wuñu ma joxuñu ma ma lekk j'ai du respect pour les gens qui sont dans ce pays di def loo xamante ne mi ngi jëriñ askan bi nit yi naw leen ci. Mm-hmm. ak ku mu mënta doon. Mm-hmm. mais nag nit ki laajte na nañ leeral. Mm-hmm. bëgg nañ xam de. parce que dara bu xësee bu dugg ci nopp nit ñi. ça va être un questionnement après est-ce c'est vrai est-ce que pas est-ce que est-ce que. donc mettons les choses de façon très claire sur la table en disant lii moo am lii amul léegi nag après bu ñu demee ba firnde gi taxaw. bu firnde gi taxawee na ñu doogay mën a de euh, ah li mu def nii kat lii la mënul indi ci société parce que ba tey du affirmation ce sont des questions mais àggaguñu foofu mhm. moo tax ma ne ndax laajte dañ koy tere <laughs> waaw ndax jar na kon ñi ci ci ñi ciy ragal ci Sénégal bi ñu nekk te mhm. xam ne euh, personne n'est à mhm. man keneen ak keneen man damay dem sax ba après quand des gens me disent euh, su may dem dans famille ah attention yaa ngi wax wala lii ah. xoolal ni ngay waxee xoolal ni ngay waxee mun na la yóbbu kasoo mun na li ma ne la ay ñaanal ma jàmm lu mu fay def. liberté bi amatul sa yoon. je cherche pas à offenser ou à euh, di quoi que si ma demee ne li may wax man loolu laa gëm. Mm. après nag mun naa ci wéet <laughs> mais man loolu laa gëm. mais nda euh, Aram euh, fii est-ce que jaroon na quand di yenn problème yi léegi justice lu ñu wax ñu ne justice lu ñu wax ñu ne convocation lu ñu wax ñu ne sûreté urbaine na dem nguy mais est-ce que tey tool bokkul ci lii fragiliser li nga xamante ni moom moo di moom moo di justice bu Sénégal parce que lu lu ñu laaj tey nguur gi nguur gi tontu mais avec des des menaces tontu na mais dugal na ay menaces mais ndax jar na ñuy yóbbuwaat ci ay convocation xam nga am na loo xamante ne ni euh, mën na ñàkk. Mm-hmm. mën na ñàkk parce dafa am ñoo xamante ne comme li ma wax sànq euh, si je prends l'exemple de de de Hadjibou Soumaré mhm. mook président Macky Sall xamante nañu bu baax liggéeyal na ko mhm. donc am na loo xamante ne du man may taxaw di ko wax wala lii donc am na yoo xamante ne ñoom ñoo jaar ñoo xam seen cuisine interne ñoo xamal seen bopp yenn mhm. justice bi ngay wax naan lu lu jot mu lii yenn tey dañu bëgg a wane image une justice dynamique une justice qui est Euh, malheureusement xawma lay wax xaw ma mais lu ma si mën a li mooy c'est plus les dossier politiques hmm. moom la ñuy gën a gis voilà ce sont nous les médias ñooy hmm. gën a génne loolu parce que politique la nit yi di wax hmm. suba ngoon midi soir politique rek donc c'est c'est c'est ce qui vend le plus donc médias yi ñoo koy jox benn benn ampleur bi mën naa am yeneen dossier yoo xam ne ñu ngi koy traité xaw ma j'ai pas traîné au tribunal pour xam ndax lii wala lii wala demander en terme de chiffres yan dossier la ñu traité ak mm-hmm. fan la toll pour mm-hmm. faire le point je peux pas me permettre mm-hmm. mais lu ma remarqué mooy on peut pas aujourd'hui ne plus fair partie du camp du pouvoir et se tout le temps euh, nekk ci yenn situation yi day am lu muy nuru ça ne pas dire que nga nekk tamit opposant tekkiwul ni boo defee euh, lu dul yoon dañuy war a lijjanti loolu mais fi may waxee mooy chaque fois bu ñu équilibré population bi du ñu sentir. Mm-hmm. kii dañ ko faral kii dañ ko bàyyi. Mm-hmm. il faut que aussi ñuy yemale ni ñuy war a traité un dossier wala benn mbir bu ñu yëkkati ci penc bi. Mm-hmm. mu soxal euh, quelqu'un du pouvoir dañ ko defee de la même façon euh, ci quelqu'un de l'opposition mais coow du am. mais bu fekkee chaque fois dañuy dégg ne diw bokkatul fii. moo tax moom la ñuy topp day am lu muy nur mhm. te loolu encore une fois day gàkkal mhm. image wu président de la république parce que moom la ñuy wax chaque fois mooy la personne morale ci dëkk ci ci Sénégal bi ñu nekk mhm. donc kooku noonu jàpp nañu diw kii lii na lu taq si njabootam lu mu mënta doon. Mhm. dañ naan moom la. te te justement ça nous mu ñu wax ci au niveau international tey bët bi ñu sànni Sénégal parce que le cas sànq bi ñu koy wax bu Pape bu Pape Ndiaye ñu ngi gis ne même média yi féetee au niveau de l' extérieur ñu ngi koy traité mais tey un opposant comme Ousmane Sonko qui a des dossiers yoo xamante ni mi ngi contre lui euh, dem na tamit di clamer état bu Sénégal ci bitim réew loolu. ndax ban image lay jàpp diggante pouvoir bi ak comportement ak ay opposant om Aïda lii lii lii lii dee ci réew mi ñi ci jële ay gaañu gaañu mhm. ñi ci am ay blessure et tout na sañul nekk pënd rek nii <laughs> waaw mhm. pour être très à terre pour man mhm. sañul nekk pënd nii rek am na loo xamante ne nii euh, dañ ko war a xoolaat dans ce pays. Mm-hmm. gis nga luy nu justice di doxee luy principe bi naka la war a tëddee wala lii ñooñu ko gën a xam luy yoon ak lu dul yoon. Mm-hmm. ñoo ñu ko gën a xam donc ñooñu tey bu ñu demee bay taxaw di doxal. Mm-hmm. nañu xool seen aqulay taala li nga xamante ne nii moom mooy li leen di topp parce que loolu lañ leen di xoolee ba keroog ñuy dem. loo àtte fii te du dëgg bi gisuma lu ko jar ci àddina. gisuma ko y a des choses yoo xamante ne nii nag man damay ne tout le temps xanaa yem walla li ñu yem ci di jox nit yi dafa am lu ñu nëbb mm. parce que pour man su juge fonde woo ci dara ba taxaw ne lii lay def yow xamoo raison yi je vais pas m'avancer si naan lii moo tax walla lee moo tax mm-hmm. lan la ñu jox ñun en tant que information ñun foof xëy na foofu lañ toll ci station boobu ñoom leneen lu ñu am nañu nañu bàyyi mu mu dox mais damay ne. Mm-hmm. sañul nekk pënd xanaa. il quelque chose. parce que bu bu nekkee pënd li tax ma ne sañul nekk pënd y a eu seen famille yi ñuy xaar responsable. ñu teg loxo ne mm-hmm. diw mooy responsable ndax moo mm-hmm. indi lii. loolu ba léegi amaguñ ko ñi ci am ay gaañu gaañu mu xam ci force de l'ordre wala ci population ñooñu tey tey bu fekkee lii riir la woon rek bu wàccaat gaañu gaañu yooyu ñoom ak sekal yi ñu am. Mm-hmm. Sénégal mënatu leen ko fay. deñ na si ñoom wala gaañu nañu dootul deñ. Mm-hmm. donc nañu éviter loo xamante ne nii mooy mooy mooy taal réew mi. Mm-hmm. man damay damay déglu damay bàyyi xel damay gis yenn yi et y a des gens qui sont là qui alertent chaque jour nga gis leen. Mm. bu ñu deful ay post ñu ngi def ay tweet ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax euh, di créer ay cadre yoo xamante ne jàmm moo ko tax a jóg mhm. donc yooyu noonu yëpp mënuñu ko ci am ci réew mi ba pare ñuy seetaan muy am fu mu jëm ku war a bàyyi xam nga responsabilité mhm. responsabilité dafa am solo xam nga responsabilité man su ma nee journaliste dafa war a wax dafa war a lii dafa war a laa sama responsabilité man en tant que journaliste su ma naree yëkkati information bi teg ko ci pénc bi mu taal pénc bi sa responsabilité war nga ko mhm. lan la la lan la lay wax nga def cest à du du canaux yëpp la ñu war a jaar di communiquer du du fépp la ñuy waxee du fépp la ñuy waxee donc am na foo xamante ne ni boo si nekkee da ngay naan man naa xool lii bu ma ko defee conséquence bi lan la mhm. soo nee kan moo war a bàyyi man daf may jaaxal parce que ñun ñëpp a bokk benn mbir président Macky Sall dañ ko dénk. Mhm. fala budda day bàyyi keneen yéeg kooku dem dañ ko dénk les gens sont devenus maintenant exigeants dañuy laajte dañuy questionné wu dañu bëgg xam luy am foo dugal xaalis bi. Mhm. foo lii foo la si comme sa waa kër buñ la dénkoon benn sob nga ñëw xëy na leen réer na. dinaa dinañ toog ne la déet wax ñu fan la jaar noo mm-hmm. def foo dugal xaalis loo lii loola mm-hmm. cest à si c'est au niveau macro mm-hmm. imaginons kon nan lay liggéey ku ci nekk di nga bëgg xam loolu mooy indi confiance loolu mooy indal euh, réew muy dox jëm kanam mais mënuñu chaque fois bu nit nekkee au pouvoir ñu def du surplace wala ñu def step back di xool liñ ko dénkoon fii waroon nañ ko romb wala rombaguñ ko lan nañu war a def nii fichier bi wóoluwuma ko xaar ñu xoolaat ko y a des questions yoo xamante ne mhm. pour man rencontre ñu def yëpp ci wàllu politique mhm. waroon na ko régler mhm. justice bi très souvent aussi ñu organiser wu ay car di waxtaan entre ñoom y a eu des changements dina am yoo xamante ne dina indi peut-être dynamisme ci mbir yi nu muy doxee mais nu muy doxee bu nit ñi nekk ci société wala boog une partie gëm ne dafa féete boor loolu mooy indi coow loolu mooy indi fitna kuy mhm. doxal nag boo jéemee tëddee njaaxanaay mhm. gëw ni dina indi coow dafa mel ni euh, li ñu cëraloon ci waxtu jeex na ñu ngi amoon vraiment plaisir bi ñu ñu sekk waxtaan bi nga xam ne on a même pas mu jeex <laughs> nde aram ñu ngi lay bàyyi nag nga tàggatoo ak ñu ñu doon seetaan waaw merci merci Aïda ah kontaan naa bu mhm. baax. Mhm. dama gis euh, Anta Anta euh, Diédhiou. Anta Marok. waaw nee na nee na nee na euh, escafoise bu invité waat beneen escafoise <laughs> damay réew sonn man ko wax nga dëgg. donc jot nañu liggéey et mhm. tout. je pense que ni may doxaleek ni may lii gis nga ni. bàyyiwuma woon sax yéen ñi nga xam ne yéen a fa nekkoon. exactement waaw waaw rigueur boobu noonu comme li may wax damay naan affaire bi mbuus la mhm. su ñu toogee di journal mhm. xëy na man la ñuy gis mhm. mais ku ci nekk da nga indi sa morceau pour ñu ñaw ko mu baax su fekkee ne kenn bosam yàqu na rek dafay def tâche parce que boobu la nit yi di fàttali malheureusement noonu la mbir yi di tëddee mais kontaan ci euh, gis li ngay li ngay def parce que Euh, personnellement xëy na bi euh, ay fra ay kii mhm. fragment lay gis mhm. tombé si seetaan et mhm. mais euh, j'ai eu de bon retours par rapport ak liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def bëggoon naa fekk rek bu xees bi waaw ah. <laughs> moom itam ñu def liggéey bu am solo public nee naa ko dimbalu ñu dimbalu ñu sonn nañu su xoolee yenn poste ma ne ko ay eh, waaye Diallo dimbalu ñu sonn nañu mais franchement kontaan ci di gis ñoo xam ne jot nañu bokk liggéey tey ñu bokk bokk ci ñoo xamante ne ñu ngi leen di ràññee hmm. wala di rafetlu seen liggéey ci hmm. loolu am na solo hmm. mu koy gis si Diallo ma koy gis tamit euh, si si si yow ah, macha allah di fàttaliku may dooree ñëw Excaf même pas un mois euh, yow ak Pa Ousmane Cissé ngeen concerté wu ne mooy dem conseil constitutionnel def live <laughs> mosuma def live mosuma dem direct et c'était la première fois sans ma préparé wu et njëkk a couvrir tamit président Macky Sall si seen si seen loxo la jaare ñu tamit dañuy wax merci ndax euh, dañu leen fekk si. ngeen ngeen ngeen yaatoon ñu te amuñu woon carrément expérience télé. vraiment ñun ñëpp dañ ñoo jàngal ñun ñëpp dañ ñoo jàppale ba léegi dañu am tamit ñuy jubbante mhm. di ñu wax euh, teg leen fii donc suñu amee tamit possibilité mën ko partager. Mhm. ak suñuy rakk pour man devoir la ñu def ko. oui oui waaw. Mm, kontaan nañu en tout cas kontaan naa bu baax di di remercier également euh, Seneweb mhm. parce que liggéey bi am na solo. Euh, soxlaatul sax ñu leen di defal. pub wala dara. je pense que c'est partagé les gens gis nañ liggéey bi ngeen def mhm. te ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu euh, di di wax ne dara du doy lépp rek chaque fois il faut parfaire defaraat yenn yi te loolu noonu mm. yaakaar naa kilifa yi ñu ngi si ndax gis nañu yu bëri yoo xam ni yéen a ngi koy doxal donc encore mm. une fois mm-hmm. euh, félicitations jàpp leen dina dina baax incha allah incha allah lu fi lu fi jubul rek ñu xam ni encore une fois aram la man la <laughs> ñuy jubanti rek ñu ñu ñu comprendre ko noonu <laughs> ultimatum bu tay bi gis ngeen day am Touré journaliste la dalaloon même su fekkee temps yi day dugg si suufu table yi nekk ci biir dëkk bi <laughs> daw tuuti écran bi. Euh, ñu ngi jaajëfal bu baax yéen doon suivre du Diop mi jàppanti technique bi ñu ngi koy jëfal bu baax alors di leen jox dig daje rek ba semaine prochaine incha allah ci ultimatum ak ay ganam. <laughs>